Cheikh Ahmed nooy lekkee laax sëriñ àndalaa nooy lekkee laax àndalaa eh, nooy lekkee jabar ji leneen doon nëbbu gaa yi jabar jaa ngi nii jabar ji leneen doon nëbbu yow yaa toj sa jot ndey bay sëyeeg Cheikh Ahmed Cissé ku tekkiwul saram daram borom koy yu ndaw yi nga ne moom ngay sëyal jabar ji leneen doon nëbbu <laughs> gars yi danoo xarañ de Cheikh bi seex bi gars yi dañoo yéeme de fii lépp la di li jëndi gars yi dañoo yéeme jabaru seex Ahmed ji photo yi ma ci yor dafa bëri de da koy ñaanal fii nee na nee na da koy ñaanal <laughs> photo yee bëri gars yi dañoo xarañ de man yéeme dama man dama yéeme samay mbir dafa garaaw de dama dama doy waar ma ne ko man dama doy waar man aadu man dama dama doy waar photo yaa ngi nii ku ko amul rek message ma naa ko dugal sama telegram léegi ak yeneen koy Cheikh Ahmed ñun danoo doy waar seex bi cheikh bi Adama dafa yéeme daa doy waar cheikh bi Adama dafa doy waar xam nga leen moo tax mu takk femme bi dafa bëgg ay kayit. ma ne ko ay kayit la bëgg. si. ok xoolal ma lii Cheikh Ahmed Cissé mi ngi nii de jabar ji léegi nag gars yi damaa juumoon sama telegram bi parce que xam nga man dof laa bu ubbi telegram benn waay moom moo ma wax ne ma sa telegram xaaral ma copier la lien bi nga def ko ci sa kaw bio TikTok su ko defee gars yi abone ma ne ko nan lañ koy copier mu ne xaaral ma defal la ko ndekete yoo moom dafa dem ubbi ab telegram rek bind ci aadama boos yónnee ma ko man ma dof ba dee ñëw ne ko tàpp démb ba tey may insister ci ngeen abone ndekete yoo ndekete yoo ci telegramam ngeen di abonné ci groupe am 25 mille abonnés yooyu abonné li tax gisuñu koy yi parce que fan abonné baaxul maa ko def de erreur bi ndax man maa xamul ni Telegram di doxee rek loolu la da ndax danan ma ndax garaawul mais ubbi naa sama chaîne bopp ubbi naa sama chaîne bopp tuddee ko Adama Dey Negri xoolal Telegram bi copier naa lien bi man sama jëmmi bopp dugal naa ko sama bio TikTok dugg leen sama bio TikTok ngeen abone maa ngi cay vocal lu neex. léegi bu ko defee ma tëmbal kooy yëpp ci biir ngeen gis kooyu Cheikh Ahmed Cissé yi lii ma rey ndax ka yor telegram bële mënu leen dugalool gat ndax moomu ko man maa yore kooy yi ndekke man fi ma koy dugal ak yéen fa ngeen abonné bokkul maa dof sarab ndeyu maa wéree di rek man naka la ma nit mën a wax mën a naxee nii quoi mais xam nga rek dama nandul telegram lool la rek xam nga su ma nandoon telegram nit du jóge fële di ma yónnee benn lien naan ma dugal ko sa biir TikTok gars yi abonné pour mën a gis affaire yi ndekete yow moom moo ko ubbi moo tax gars yi vingt cinq mille abone yooyu du man ne jiitewuma ko nekkuma ci groupe bi mënuma faa dugal gat lii lii moo tax démb ba tey gisu leen koy Cheikh Ahmed Cissé démb ba tey li tax gisu leen ko loolu la problème boobu la keneen moo seere groupe ba man la nax nag ne jox ma lien ma jël ko def ko ci kaw bio bi pour ngeen di abonné ndekete ndekete ndekete man daal loolu du sama bos ndeke du sama bio non Cheikh Ahmed démb li tax démb nga am sens moo tax ma ne waa man gars yi naan ma gisuñu kooyu Cheikh Ahmed yi xanaa nekkuñu ci telegram bi vingt cinq mille abonnés ndekete yoo feneen lan abonné mais ki ma def loolu tamit dinaa xot dinaa toj sa cottu nay damay bàyyi ba pare ci kooyu Cheikh Ahmed yi su ma ci paree naa dëgg sa nay bu dee man ngay nax pour jéem a amit abonné telegram naan ma sa telegram a ngi nii man ma gis aadamo bi rek copier ko dinaa ubbi sa lëfal nday bal ma ma pare ci lii waaw léegi nag gars yi léegi na wàcc sama galerie album bépp wàcc albumu mariage bi yëpp mu ngi sama téléphone oui non albumu mariage bi yëpp mu ngi sama téléphone tege album bi yëpp nag laa wax lépp fi ni lekkee laax ak fi ni tëddee ci lal beeg xaa am na yu téléchargé wul sax am na yoo xam ne téléchargé gul des na des na fi ni tëddee ci lal bi <laughs> fii sëñ bi nee na da koy ñaanal soo tëtëtët non sëñ bi ñi ngi ko seqal ñoo bari doole maanaam doole jee bëri. Foi comprar cigarette, mora mignon sonal de dolli daa énervé wu. Ora si mangia poi si prende sigarette. Oh, però veramente. Gai. Non ci stai, da doon nëbbu jabar ji léegi ma def samay information samay investigation dem ci nga xam ne moo foto xew mi gars yi yónnee ma numéro am ne ma kii moo doon foto xewu seex Ahmed Cissé bi moo doon jël foto yi te moom moo ko foto ma ne leen ah ñu ne ma waaw ma ne leen jox leen ma numéro am ñu jox ma numéro bi ma ne ko grand nu mu demee yaa ngi si jàmm ah? man la Adama bos ne Negri man ma ne ko Adama Boss day Negri mi ngay dégg man la euh, Cheikh Ahmed Cissé moom laa dugal koy yi barki déggam fi mu toll nii dil bi muy def di yàq sénégalais yi ñëpp yaakaar na yaa nekk ci ganaaw parce que yàq na ay jigéen takk jabar yow nga osé ba dee da koy foto ki ma yónnee numéro bi nag yónnee na ma sa photo yaay ak sa photo papa sa famille bi yëpp xam naa fi lu dëkk dinaa ubbi sa lëfal ndey bu baax photo yi laa soxla sama galerie léegi su ko defee jàmm am photo yi bu ñëwul ma dëgg sa ndey galerie bi yëpp wàcc na photo yi jabar ji yëpp maa ngi moom jabar ji yëpp individu yeeg tout waaw man lay neex rek ma partagé ko toj cottu lépp maa ngi moom lépp ma toj sa cottu ndey gay aw ma temps galerie bi laa téye nii fi mu nii yéen ñi gisagul jabar ji maa ngi ni di leen ñamal benn par benn jabar ji mu takk nii pour yéen ñi ko gisagul sëriñ àndalaa ngi noonu tuuti koy pour yen ñi gisagul jabar ji message sama telegram gaaw leen ngeen abonné fa gars yi lien bi mi ngi sama bio tiktok du ngeen gaaw ngir yàlla du ngeen gaaw ngeen daw telegram li ngeen nar a tardé sama bio tiktok bi bës leen ko ngeen abonné gaaw ci telegram bi ah bu leen tardé lii waay daw leen telegram bu njëkk ba moom ma ko woon dan maa naxoon nit moo jël telegram am jox ma ko ne ma maa ko moom ndeke moom ko ndeke 25000 abonnés yi fanu abonné baaxul nanu désabonné ñu abonné ci bu bees bi mi ngi sama bio TikTok abonné leen gaaw mën a gis koy yi ak lii xew vocal laa leen di may man saa yu may wax ci telegram bi damay vocal parce que ragaluma li may def man du ma bind du ma bind de vocal laay def ne leen man la Adama Boss Day Negri maa ngi waaj a dugal dara ñëpp di ko liir man du ragal nag ay écriture sax man dama koo taayal laay dugal ay vocal comme ni koy defee rek ci groupe taj laay def man la aadama boos day néegi ni koy yaa ngi ñëw taj bàyyi mu dem man la aadama boos day néegi ni photo mariage yaa ngi noonu taj bàyyi mu dem waaw ay vocal laa leen di may ci telegram bi du ma leen du ma leen bind waaw léegi nag gaay damay couper live bi fii maa ngi dem telegram ak gari li ci des dugg leen sama biotik TikTok bio TikTok bi mooy profit bi fu mu nekk TikTok benn lien kese fa nekk sama telegram la bës leen ko ngeen abonné ci sama telegram maa ngi ñëw partagé leen telegram bi nag fépp parce que fa lay dugal yeneen koy des guddi am nan femme bi laalu saa day ñëw guddi incha allahu rabbi daw leen ngeen abonné telegram.